fi ma nekkoon moom mooy sànq li ñu doon wax euh, li laas doon wax naan ñun dañuy xooxatal wala dañoo nekk si dañoo nekk si benn suspense boo xam président Macky Sall daf ñoo tànc donc ma ñëwoon ci waa euh, PS ñëw ci waa AFP ci carte blanche bi ñu jox président Macky loolu di concerne coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall ñëw ci suñu biir parti laaj ñu ba ñu laajee ñu ne ko ah, sëñ bi yow la ñu jiital xoolal koo ñu tànnal mais ci xoolal koo ñu tànnal boobu noonu candidat yu fi à la candidature yëpp seeni ndaw wala ñi nga xam ne jàpp nañ ñi war nañoo am dara mais ñoom ñooy taxaw ne ñun kat bu ñu sañoon diw jiite mais loolu loolu moom mooy règle primaire démocratie primère mais yéen a taxaw ni Macky Sall xoolal koo ñu tànnal. dama ne Macky Sall ba mu ñëwee biir APR ba mu ñëwee biir Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Yaakaar dañu ne ko jox nañ la carte blanche koo ñu tànnal ñu topp ko mu ñëw biir APR responsable yi ne ko yow lañuy déglu man suma responsable au niveau des parcelles ne moom man je à l'écoute du président Macky mais keneen tamit am na droit benn jeune wala benn femme wala benn koo xam ne ci commune bi mu nekk am na responsable bu fa nekk mu ne ko ah mais sëñ sëñ bi su ma taxoon su ma soññee yow nga jiitu loolu xoqatal amu ci laas bu ñu tëddee dañuy nelaw ba yandoor ñun ce qui nous intéresse c'est que le candidat qu'on va avoir candidat boobu capable de conserver le pouvoir c'est ça ñun mooy suñu idéal du ñu nekk fii di mbëkkanteeg di gaañante déedéet gis nga président Macky Sall bu joxee direction bi ñun ñi nga xam ne dañoo gëm vision nekk ay responsable ci loolu la ñuy dox parce que dañuy xam ne on l'obligation nga engagement comme Mamoudou Dal rek mooy déglu parce que dañoo xam ne on a l'obligation de conserver le pouvoir donc dañuy xool ki nga xam ne jàpp nañ ni moo ñu mën a dimbali ci loolu maintenant parce que nous avons l'obligation nous en tant que apéristes nous la coalition Benno Bokk Yaakaar une coalition ou bien un parti politique qui est au pouvoir leneen lu muy ñaan yàlla moom mooy conserver ce pouvoir dans la légal dans la légalité. à quel point déglu rek non dans la légalité. j'ai c'est la population sénégalaise qui va voter. nu xam nañ population bi xam nañ ñan la ñu war a waxal ak fan la ñu war a waxee ak ñoom ak lan la ñu jëflante ak ñoom nous avons déjà un bilan boo xam ne non laas ba ngay wax dagguma la. te sànq wax nga ci ay coppati yu bari yoo xam ne yëpp dinaa ci ñëw benn par benn am problème ñun lu ñu bëgg moom mooy fexe ba bi jox nañu bopp déjà mais ñu gën a jox bopp candidat bi nga xam ne moom la ñuy choisir président Macky Sall dafa def lu am solo loo xam ne ñëpp dañ ko rafetlu mu am droit am troisième mandat du ma dem danga ko wax léegi signifié ko ne ngorom ak dignité moo ko moo tax mu ne demuma donc di ngor beeg dignité boobu noonu ba léegi jugu fi te ñi mu àndal ngor boog dignité boobu ñu am moom lañ am ba léegi